Bienvenue sur Salam Vision. papa maaleykum salaam gannaaw ba ñu la nuyoo. Mhm. dañu bëggoon a xam euh, nan nga gisee xew-xewi xew jamono léegi surtout ak la ak euh, politique bi nga xamante ne lu mel ne réew mi. waaw politique bi de ni ma ci gis nii daaw ñu ko defee nii ndax politique dafa war a defar mais lu yàq te jamono ji politique bi violence bi dafa bari te amul benn njariñ réew boo ko bëggee da ngay waxtaan ak nit te li nga wax tamit nga fas yéene ko def loolu moo am solo mais ay xeex ak xuloo ak wax loo gëmu am benn njariñ te réew mi nag dafa metti nag bu dëgg rek la ñuy wax dafa metti te nag mu nit mënute leen lu bëgg réew ku bëgg réewam war ngaa jàpp mais askan bi actuellement moom dañoo sonn yàlla rek moo bëri sutura mais ay jom rek la ñuy demee yëf yi metti na te kenn xamul daal yàlla yàlla soppi ndax ñun ñëpp benn lañ waaw yàlla yàlla def jàmm ci réew mi waaw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa euh, papa léegi euh, lamb ji ñu ngi ci seetlu ay violence yu bari agression yi kenn wóolootul la bàyyi sa doom muy dem sa stade ba nan nga ko gisee lan moo siy sa xalaat. waaw lamb ji ñoom ñoom bu dee ñoom bëgg nañu làmb ji bëgg nañ mu avancé dañuy bàyyi violence parce que violence bu ñu ko bàyyi bu yàggee lañ koy arrêté parce que euh, di dem di seetaan lamb ñu xaañ la wala ñu jël sa alal loolu taxul ñuy wax lamb lamb sport la sport nag da ngay da ngay nangoo far parce que nit da nga bokk moom ndey ak bàyyi mu far fii kii far fii. noonu lañ ko war a jàppe ku daan nag nga xam ne yow yaa gagné ba félicité sa morom loolu mooy sport mais nit ñi kenn moom leen nag kenn ku nekk li nga sentir leen man mi sama doom ak samay jabar ñëpp fenn am na fu ñu féete mais man fee laa féete parce que loolu moo ma neex mais du dara nag parce que sa doom ak sa jabar ku leen gën a bëgg ci yow amul mais nag supporter kii la maa ngi ni man man man supporté wu moom Balla Gaye mais man rakk ji dama koy supporté te ma neex Sa Thiès sama mbër la moom rek laay supporté mais nag man euh, man bañu ma kenn ñoom ñëpp laa yéene jàmm waaw mais nag sport moom mel noonu ki kenn ku ne ak ki nga santi Sa Thiès man vraiment dama neex ci bëreem quoi man dama ko supporté loolu yàlla dogal sama gars yi dañuy draayante ak ñoom fii toujours bu jot mais nag kenn ku nekk ak li nga gëm waaw jàmm daal moo gën daal parce que jàmm daal ci la lépp xaj parce que sport moom for ak reer la quoi waaw te ñi ciy jaruñu nag ñooy mbër yi nag parce que boo fi conwee ba ba dem di xeexal kenn bu ñu la gaañee yow yaay perte waaye ñoom ñu ngi defaru parce que ñoom loolu lañu gëm gis nañ ko fi toj bëtam vingt cinq mille lañ ko seetee te amul benn jëriñ man nag bugguma loolu man du ma defee noonu waaw kontaan naa nag vraiment yéen ñu baax ngeen jërëjëf papa kaddu yi am na solo léegi euh, tey ñu gis ne euh, Sénégal mu ngi tëjee Guinée suñu voisin muy match derby bi ñu doon euh, laajte lan mooy si sa idée de score ak nan nga ko gisee nan nga xalaatee match bi waaw match bi moom ni ma ko sentiree man yaakaar naa ne moom man man li ma gëm man mooy Sénégal incha allah mooy gagné gagné nag yàlla moo koy jox ndam waaye nag nañ ko jàppee ne sport rek la parce que yàlla nag moo mooy joxe ndam fu ko neex nag dañu nangu lool mais nag bul jël nag kenn ku nekk li nga bëgg la sa morom bëgg ku gañe rek ñu xam ne moom moo gagné ñu nangul ko ko waaye nag man Sénégal laa gëm ne moom laa mooy gagné te moom laa moom laa faral waaw. <laughs> papa ñu ngi am te kontaan di la jaajëfal bu baax. Euh, boo amoon ay kàddu yoo si sànniwaat ak di ñaaxaat askan wi lan lay doon. waaw man ci wàll bi may liggéey menuisier lay def yëf yi metti na trop bant chair na te doo ko gis fi ñu toll ku jub rek ak gore moo fi ne yenn saa nga jël liggéeyu jàmbur doo gis bant te loolu metti na trop ouvrier yi sonn nañ sonn nañ vraiment lool moom te day pris yi amul amul amul kii yenn saa nga yaakaar lii ñu dem ba ci biir fekk lu gën a kawe lool yëf yi metti na daal soxna si metti na trop vraiment metti na trop yéen nag ñu ngi leen di ñaanal parce que lii mooy réew mi quoi réew da nga ciy waxtaan ak ay nit ñuy sottante parce que ñun amuñu lu Sénégal yàlla na Sénégal am jàmm yéen it yàlla na ngeen am jàmm merci beaucoup kontaan nañ trop nag vraiment merci beaucoup merci beaucoup. jërëjëf addu yi rafet na papa ñu ngi lay ñaan gudd fan ak wér kontaan nañ trop si dalal bi merci beaucoup.